ginnaaw bañ sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi leen di nuyu yéen mbokk yi ñuy seetaan yëpp ci seen euh, tubaa Al Azhar Al Azhar point com di seen site internet bi nga xam ne yëngatoom ak léppam daf koo jëmale ci tasaare njàngaleem lislaam te bu ñu waxee tasaare njàngaleem lislaam mooy tasaare njàngaleem sëñ Touba alhamdulilah mujaddidul awaami aman baxda am allati iftataha bi afdalil ashuri sahril muharrami hada alham wa ajsala fihi alfadla walata walinham wa faddalahu bil asri almuazimi fi aljahilati walislaami wasalaatu wasalaam halal haadi al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi ddin ginnaaw ba nu sant yàlla yàlla mi nga xam ne mooy jeexal am at di indi am at te atum jullit ñii yàlla dogal sunu boroom njëkkee ko ci weer wi ñu wax weeru muharram te mooy weeru tamxarit def ci ngëneel ak xéewal te weer wi tamit màgg suñ boroom gënal ko ci bari ngir fukki fan yu ci nekk dañoo wax ne suñ borom dafa am ñetti fukk yum fonk ngir lenn lu ne ci biir fukki fan wala fukki guddi yu mujj ci weeru koor suñ borom da leen a gënal ngir lay def lu xadar gi ci nekk fukki fan yi tabaski wal fajri wala yaalin xasrin wala nga ne fukki guddi tabaski suñ borom da leen fonk gënal leen ngir yow ma tarwiya bi ci nekk bisub juróom-ñetteel ba ak bisub xarafa ba ak bisub tabaski waaye tamit fukki fan tam xarit fukki yooyu yëpp sun borom da na gënal ngir bisu tam xarit bu ci nekk bisu tam xarit di bis boo xam ni dañ ko daan màggal ci ba lislaam ñëwagul ak bi ñëwee muy weer woo xam ni wax nañu ci weer yii ci la sunu borom bind aras ak kursi ak aliwul lawul mahfuus ak xalima ga weer wi ci la xuseynu ibnu aliyu moom itam uh, génnoon àddina ci bi gàddaay bi amee mm, juróom benn fukki at ak benn ca Karbala kon weer wi weeru fees dell ak yiw ak ay barke am ay xew-xewu taarix yu ci am ak xew-xewu diine gis nga gàddaay yonent bi sax atum jullit mi ñuy tàmbali ñu ngi ko tàmbalee ci muharam gi nga xam ne yonent bi ci gàmmu la gàddaay waaye nag tàmbale gi ñu tàmbali at mi ci muharam moo tax bu ñuy waxtaanee tamxarit ci tuddaale gàddaay gi yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam nga xam ne dafa bokk moom muharam ci arbaxatu xurum yi nga xam ne ay weer yu suñu borom fonk la inna iddata sumuri indallaahi isna asara sahran fi kitaabillahi yawma xalaqa samaawaati wal ardi minha arbaxatu xurumun arbaxatu xurumun yooyu ñeenti weer lañ ñett yi ñoo taqaloo muy diggu tabaski tabaski tamxarit rajab mooy wacce beru kon moom sax ngay dégg naan sëñ bi naan busra lana xat ataanal juudu karamu la mastaalat alaynal ashhurul xurumu ashhurul tamxarit weeru muharram weeru tamxarit benn la fi ay aay yu bare bare ñëw na ci yasalunaka xani tahri xaraami xitaalun fii xul xitaalun fii kabirun wasadun ba ni ay jeexe nga xam ne daal weer yooyu dañ ko màggal ci bu ñëwagul ak lislaam ñëwee arab yi ni mënoon a fayantoo ni ñu toppee deret wax nañ ne daa nga gis ku sa baay ci boori kàbb ga ci weeru tamxarit wala weeru asu xurum yi doo ko def dara kon loolu dafay tegtale na ñoom daa nañ ko màggal ba lislaam ñëwee tamit loolu it da koo fonk dëgëral ko wax nañ ne yonente bi bi mu ñëwee Madina dafa gis yahudi di màggal tamxarit mu laaj leen lu xew ñu ne ko Moussa bis bii ci la ko sun borom musale woon ci la xare woon baxaru xalsum moo tax ñu di ko màggal di ko ormal yonent bi neen ñun ñoo leen gën a yay ci bis boobu bis boobu tamit yonent bi jël ko di ko màggal màggale leen ci jaamu yàlla te mooy fukki fan boobu mu daan ko wor kon loolu mooy tamxarit ci tënk ci gàttal kon Mm, waxtaan wi rek daanaka li ko tax a jóg mooy wane diggante sëñ tubaa ak tamxarit dañ ko indi nag ci euh, ñetti anam anam gu njëkk gi mooy li sëñ bi bind te mu jëm ci tamxarit nga xam ne amul rapport ak moom da ciy nettali rek li ci xewoon ak yiñ ci war a def beneen bi mooy xasiida yi sëñ bi def tënkee ko ak tamxarit lu jëm ci tamxarit ñetteel ba nag mooy moom événement yi am ci dundam te am ci weeru tamxarit ak li ko suñu borom defal ci tamxarit kon daanaka waxtaan yi rek loolu la sëñ bi nag li mu bind ci tamxarit nga xam dafa jëm ci tamxarit bari na am na ci téeréem téere xam yi ak yeneen téere yi dégg nga mu naan sumali xansuura asya un tura bi bihaa waa man dara nee na bisub tamxarit am na ay mbir yoo xam ni tamxarit moo ko jagoo te ñi xam nit nañ ko daal dina fi fii taaba rabbuna ala abi basarihi aadama awlu nabi nee na euh, ci bis bii di fukkeelu fan ci tam di tam bis boobu ca la sun borom jéglelee aadama xam nga aadama sun borom da ko bind dugal ko ca àjjana ginnaaw bi mu dugalee malaaka yi ñu sujjotal ko bi mu duggee ci ajana mu wan ko ak garab na ko laa taqraba haadihi sajara fa takuna mi na yow ak sa soxna Awa bu leen jegee garab gii garab gi bu ngeen ko jegee bu ngeen ko laalee da ngeen bokk ci way jalgati ya da ngeen bokk ca way tooñ ya Iblis ñëw nax ko ba euh, lekk garab wax sa ba waxaa sama xuma inni lakuma lamina na Iblis waatal ko ne ko dama leen di laabiri rek. hal adulluka ala sajaratil xuldi wa mulkin laa laa yablaa ndax du ma la tegtal garab goo xam ni boo ci lekkee da nga sax fii ci àdduna te da nga am nguur goo xam ni duraap ràpp mukk wax nañu aadama xër gi mu xër ci sax ci ajana tax mu lekk garab ga falamaa saaqa sajarata badat lahumaa sawaatuhumaa wa tafiqaa yaxsifaani ba ni xise bi jeexee wax nañu nag ba mu defee bàkkaar boobu ba sunu borom génne ko ci ajana ci bisu tam xarit la aadama tuub ba sunu borom jéggal ko kon xew-xew boobu am na ci tamxarit mooy tuub gu suñu borom tuubal jéggal aadama mi nga xam ne mooy bàyyi mu neefi waaye mooy prophète bi njëkk yonent bi njëkk ku yàlla sol nabi la nga xam ne moom mooy prophète bi bu njëkk nga xam ne waxoon nañu du woon mursal du woon envoyé waaye prophète la wax nañu tamit sëñ Tuubaa nee na ci bis bii di fukkeelu tamxarit yonent yàlla noohin keroog ba ko sun boroom yónni mu di woo ay nitam fa labisa fihim alfa sanatin ilaa xamsiina aman mu sax di woo ay nitam juróom-ñeent téeméeri at ak juróom fukk junni at bu manqué juróom fukk mu nekk ko ci aw nitam di leen woo ci ñu topp yàlla gëm yàlla wéetal yàlla alxaane na homa amana ma hum ilaa xarin lu néew rek ñoo ko gëm ànd ak moom ba sun mujj gi yonte yàlla nu hin ñaan ne sun borom rabbi laa tasal xalal arde minal kaafiriina dayyaaran innaka in tasarhum yudiloo ibaadaka wala yalidoo ilaa faajiran kafaara ñaan sun borom alak ñi fi nekk ñëpp sun borom jox ko ndigal mu defar ak gaal bi mu defaree gaal gi ba àggal moom ak ñi ko gëmoon ak li naroon des ci kaw suuf lu ci ne mu jël ci peer ñu dugg ci biir gaal ga suñ borom digal euh, ndox mi ne ci kaw mu wàcc digal ndox mi ne ci suuf mu génn wa xiila yaa ardu iblahi aki wa yaa sama iqlahi tufaan ma daal di ñëw fa axasahum tufaan wa hum saalimuna fa anjaynaahum ba ni aayee jeexee ba tufaan mi ñëwee nag yonte yàlla noohin gaal gam yoroon nag ak ñi ci duggoon nag ci bisu tam xarit la gaal ga teer ñu mucc wastawat alal juuli waxiila buxdan lil xawmi saalimin moo tax sëñ Tuubaa ne wastawati safinatul maaluma fii alal juudi yi mustaqima ci bis bii di tam xarit baxaru xalsoom mooy baxaru euh, xalsoom bi nekk ci Égypte nga xam ne Firawna daroon topp Moussa di ko topp ba Moussa agsi ci géej gi ñooñ Moussa ne ko Moussa mii kat danañu jot ndax ñu ngi ne ci géej gi lañ jëm te Moussa ngi topp suñ ginnaaw suñ boroom jox ndigal Moussa mu dóor yat wi ci géej ga bi mu ko dóoree géej ga daal di xar kat taw di azim yonent yàlla Moussa jaar ci akun itam ba génn bi mu ci jaaree ba génn nag Moussa dugg fa ak wun itam bi musaa génnee doraat yadu ci géej gi na ak aw ñeñam lap loola bi nga amoon ci bisu Tamxarit kon bis boobu ci la yonent yàlla Moussa mucc ci Firawna ci la xal baxru bis bii di Tamxarit ci la Firawna labe waaye bis bi tamit di Tamxarit Sëñ Tuubaa nee na yoon yonent yàlla Yunus ci la génne woon ci biir géej wa nga xam ne sunu borom ne na faraw laa annahu kaana min al musabbihina la labisa yow mi ila yawmi yub'athuna yonent yàlla yunus moom la jën ba lekkoon dafa dugg ci biir géej jën wa lekk ko jën woo wax nañu beneen jën lekkaat ko moo tax sunu borom ne fa naadaa fi sulumaat mu woo sunu borom ci biir lënam lënam yi lënamu géej ga lënamu biiru jën wa ak biiru jën wa ko lekkaat keroog ba mu tuubalee suñu borom woo suñu borom ne laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin ci bisub tam xarit la ko suñu borom xettali moo tax mu naan bi bas naahu bil araayi wa huwa saqimun kon ci fukkeelu fan ci tam xarit xew-xew boobu ci la amoon ci la ko suñu borom jéggalee Yuusuf yontu yàlla Yuusuf borom taar ba keroog bañ ko sànnee ci jubbu boobu ay doom bàyyam sànni ko fa te sunu borom bañ ko fay sànni sunu borom ne la sa nabbi annahum bi amrihim haada wa hum laa yashuruna lii ñu lay def da dem ba toog leen ko nettali te ñoom duñ ko xam ci bisu tam xarit la ko sunu borom génne foofa xetli ko fa waaye ci bis bii di fukkilu tam xarit Sëñ Tuubaa nee na wa fiihi aydan salima xaliluhu min naarihi fa salima ci bis bii yont yàlla Ibrahima bañ ko dugalee ca sawar wa ci bisub tam la ko sunu borom musal sawar wa lor fekku fa waxul naa yaa nooru koo nii mbardan wa salaaman ala ibrahima yont yàlla idris ci bis bii ni tam xarit sëñ Tuubaa nee na ci la ko sun borom yëkkati mu dem ci kaw yont yàlla isa ci bis bii la ko borom yëkkati moo tax mu ne wa fiihi rafu zil xula idrisa wa raf ruuhi taqi isa bis bi tamit ci la sun borom jéggalee yont yàlla daawuda kon yëpp yaa ngi gis ci mbindum sëñ Tuubaa mu di la wax xew-xew ak événement yi xam ne ñoo am ci bisu tamxarit waaye sëñ bi am na neen nu mu ci tamxarit yoo xam ne dafay wax yiñ ci war a def mu ne wat tafaxu wattafaxu fi fadli xansuura ala allati yudaa bi taasuwa li kawnihi aktharo minhu ajra fal tasbito sawmat jamiha daxara nee nañ boroom xam-xam yëpp d'accord nañ ci ne bisu tamxarit bi moo gën bisub juróom-ñeenteel bi ngir yool ga ca nekk mu ëpp kon daal waaye nag daal wax lu am solo nangeen ngeen saxal woor ñoom ñaar ñëpp muy woor bisub fukkeel ba woor bisub juróom-ñeenteel ba fal tas bitul sawmal jamihat dahra xam nga yonante bi bisub fukkeel ba la daan woor ba ci atam bu mujj mu ne de su ma dundee ba déwén su ma fekkee déwén danaa woor juróom-ñeenteel ba moo tax ñu tàmm ko woor fukkeel ba tàmm ko woor juróom-ñeenteel ba bii yonente moo ko daan def bii mi bëtam la woon boo xam ne yàlla dëggoon mu def ko waaye nag waxoon na ne suma dunee ba déwén dinaa ko def sëñ bi nag nee na wa asbato fii wa fii asyaun fihi tufalu adaduha yabun ma nuqiloo nee na saxal nañ ay mbir yoo xam ne dañ ko war a def ci bis bii di tam xarit nee na yañ war a def fukk la ak ñaar sawmun salaatun sillatun wa xuslun sadaxatun taqlimu sufrin kaxlun iyaadatul maridi sur zawru aalimin wa masu raxsin li yatimin saalimin xiraatul ixlaasi alfan wakasa tawsihuna alal hiyaali uxisa nee na woor ko bisu fukki bisu tamxarit ba fan ci tamxarit julli ci dañ cey julli jokk ci mbokk sangu ci farata sarxe ci leewee tusngalu seetu ko feebar siyaare yi borom xam-xam raay bopp jirim te buñ ko wax mooy dimbali ko jàng ci suratul ixlaas junni yoon yaatal ci sunu njaboot sëñ bi neen yi yëpp yu ñu war def la nee na sangu ci sangu ci farata day tax wéradi bu newoon ci sa yaram sunu borom jëli ko fi tus nga fi day tax doo gumba yaatal ci sunu njaboot day yokk wërsëg waaye yëpp nag bi isnil yi ci coobare sunu borom la ci ndigalam la gis sax boo demee ci maj ma ni moom itam waxe na la ko neneen beneen façon waxin ci beneen uslub di wax ngëneel yi nekk ci biir xaasuura ak yi ci war a def daan ne fii yow mi xaasuura bi tatasil bihaa isnataani wala haa fadlun nuqil sum salli suraale man ut waqtayil raxsal yatimi imsax tasaddax waxtasil wasi anel xiyaali xalim sufara woo suratil ixlaasi alfan taqra tey na nga woor na nga julli nanga nga siyaare borom ko xam nanga nga ko feebar na nga tusngalu na nga raay bopp jurim na nga sarxe na nga farata na nga yaatal sa njaboot na nga jàng suratul ixlaas moom itam junni yoon ba tey sëñ bi mbokk ci mbind te mu jëm ci tamxarit daana wax ne ñaan gi ko jàng ci guddi gu njëkk euh, ci weeru muharram at moomu saytaane du la fa jege du la mën a lor mooy allahuma anta al abdiyul xadim alxayul xayumul karim alxanaanul manaan di hadihi sanatul jalil asaluka fiha alxismata min alsheytaan irajim wa axwaanihi wal awna ala hadihi nas al amaratu bi suu wa istixaali fiha bi maa yoxaribin ilayka yaa sal jilaali wal ikram allahuma inni asaluka xayraha wa axusu bika min sarriha wa astakfika muanataha wa suxulaha kon yëpp euh, li Sëñ Tuubaa jàngale la ci weeru tamxarit ak ci mm, bisu tamxarit waxee ne ko feneen neen ne wa asbatu asya an fii tanqalu xan sayyidil anaami fal tastamilu sala wa sallama alayhi samad wal ali wal ali wa sahbi xam nga julli geeg tam xarit eh, julli geeg woor geeg am na yu ñu ciy def yoo xam ni am na ñuy wax ne eh, bidaa la di ko xaw a gàkkal waaye sëñ bi fii moom ni mu waxee dane saxal nañ ay mbir yoo xam ni dañ koy jëf ci tam ñu ngi ko toxalee ci gën gi mu def kon na ngeen ko jëf yàlla na yàlla doole xéwal ci moom ak ñoom ak saxaabaam yi nga xam ne way jublañ mooy julli gi sawmun salaatun silatun muxuslun sadaxatun taqlimu sufrin kaxlun ba euh, ni. fukk ak ñaari jeexee nga xam ne li sax ma di ko répété mooy sëñ bi da koo indi ci ay barab yu wutee moo tax ma di ko indee noonu. ba tey bokk na ci ñuy def ci sama xarit mooy nga jàng xasbunallahu wa ni'mal wakiil juróom-ñaar fukki yoon. subhanallah min imsaani juróom-ñaari ak ñaan nga ba mu jeex loolu boo demee ci téere bu ñu wax euh, mu jarabaat dër wi da nga fekk mm, borom téere ba ne di wax ne ku ko def danga fekkee déwén moo tax sunu mag ñi daan dajaloo di ko julli nga ne lu xaasuraa nag euh, woor ko ak jaamu ci yàlla am na ay tiyaaba yu bare ba du ci am yoo xam ne yonent bi moo ko wax yonent bi nee na euh, ku woor benn fan ci weer tam da ngaa mel da ngaa woor diirub jamono sun borom dana la bindal tiyaabay junni aj junniy umra bindal la yoolub lu nekk ci diggante penkook sowu da mel ne ku ko goreel junni jaam yoo xam ne ñu ngi bokk ci doomu Ismaayila la it sun borom dana la tabaxal juróom-ñaar fukki junniy ñenn ci ajana dana araamal sa yaram sawara dana la jox yoolub fukki junni malaaka yoolub fukki junni ñu dee ci yoon yàlla soxit yoolub fukki junni ñu aj ak ñu umra bindal la tiyaab ak juróom benn fukki yoo xam ne da nga koo yend woor fanaane ko julli te biñal la yorob ñi ci kaw asamaan ak ñi ci suuf suñ borom defal la ci kafaara ñeent fukki at ba tey yonent bi nee na ku woor benn fan ci muharram da ngaa mel da nga am yoolub ku woor fanweeri fan ku woor ñetti fan ci tamxarit alxamis ajjuma samedi ñetti fan yooyu suñu borom bindal la tiyaaba yi ku woor juróom ñeent téeméeri at ajjuma ji njëkk ci weer tamxarit ci at mu ne ku ko woor suñu borom jéggal la sa bàkkaar yu njëkk kon daal weeru tamxarit mi ngi weer wu bari njariñ la yonent bi wax na loo xam ni boo demee ci niirul awtaar sëñ Soñ wax na ko fa nee na mm, ku julli bisub tamxarit ba ñeenti rakka rakka bu ci njëkk faati rakka bu ci ne faatiha benn yoon xul wala xaat fukk ak benn sun borom jéggal la bakkaaru juróom fukki at tabaxal la min barab leer ca ajana kon yëpp mën ngaa wax ne mooy njariñ li nekk ci biir tamxarit te ci ëpp sëñ la ci des nag mooy xasiide yi sëñ bi def ci tamxarit yooyu xasiide yu bare bare la yaakaar naa lim bi bari na am na xasiide gum tënkee rek muharram moo tàmbale ci man laa yaraa ahmadana xayral wara fa soo saqaayin xal bu xuumaanu wira képp koo xam ne jàppoo ne gisoo ne naa Mohamed mooy gën gi mu neef sa xol dafa texee di te sa xol amul leer am na genn xasiida koo xam ni moom itam sëñ baa ngi ko tënkee ci muharram safar ak xasiida gu mu tënkee muharram madaha ahmada ak genn xasiida gu mu tënkee muharram madaha ahmada nga xam ne ñaar lañ ak xasiida gu mu tënkee muharram muharram lahu kooku tamit xasiida gu neex la moo tàmbale ci muhammadun salah alayhi al ahadu musalliman zeynul lazina waxadu ak xasiida gu mu tënkee wa basharahu ak xasiida goo xam ne moom itam mi ngi ko tënkee waat moom itam muharram muharram lahu moom itam xasida yu neex a neex lañ am na xasida gu mu dënkee muharram wa fi safarika mooy itam ñaari baat yooyu la tënkee xasida googu ba tey it am na xasida gu mu tënkee muharramun safar am na xasida gu mu tënkee min muharramin li xibbihi xasiir gi mu tënkee mu xaram safar lay ñaan suñ boroom bégal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bëri yooyu xasiidi gi nga xam ne moom la tënkee min muharram li xibbihi xasiidi googu lay ñaan suñ boroom mu béggal ci mbooleem kuréelu suñ boroom yi li fekk àddinaa ngi sax ak bu àddina jeexee tey ñaan suñu borom xasida gi ak mbokkam xorom ba mu def ko ci saaxayal xarsi wal kursi am na xasida gum tënkee yow ma taasoha yow mi loolu mooy bisub juróom-ñeenteel ba cent bis la xasida gi moo tàmbale ci yasiru lii ilal janaani ma uhibbu wali siwaa nax bi intaha mala uhibbu am na xasida gum tënkewaat yow ma xaasuraa liya te mooy bisub fukkeel ba man sëñ Tuubaa maa ko moom kooku tamit moo tàmbale ci yoosali ujuruhu bi leen tihan mox nin la ko maxan na bi sayrin am na xasida gum tënk moom itam yow ma xaasora ba tey bi fukkeel ba rek moom itam xasida gu neex la xasida gu euh, doy waar la moo tàmbalee yaqiiniyal yaqiinu lil jinaani maali yu addi kadaral jinaani nga xam ne bayit wi rek sëñ bi indi na ci euh, technique bu am solo lu soo maalaa yasam euh, bi ci nekk jinaasa taam bi ci nekk ci yaqiin yal yaqiinu ak jinaasa xayru taam bi ci nekk ci lil jinaani ak kadaral janaan mm-hmm. moom itam euh, xasida gu neex la moom itam waaye sëñ bi am na beneen xasida gu mu tënkee yow ma xaasuura yow mi bisu fukkeel ba sama bis la man sëñ Tuubaa am na yeneen xasir gum tënkee yow ma xaasooraa lii bisu fukkeel ba man sañ Tuubaa maa ko moom bee moo tàmbalee yesoo ko iblise li xëyri abada man fil buhuri bi jihaadi yi bi ci des moo tàmbalee ci yaquudu li suhli wa maa faaxal xarat baaxan mu sax si hun li xayril marat am na xasir gum tënkee nu war a muharram wa safar leerug muharram te moo weeru tam xarit ak weeru safar am na geneen xasir goo xam ne mu itam moo tàmbale ci tubtu li rabbiya minal muharrami wa kulli ma kuriha fi muharrami kon gis nga yëpp ay xasit la yoo xam ni xasit la yoo xam ni sëñ bi mi ngi ko tënkee ci muharram ak ci lu jëm ci muharram kon euh, muharram a ngi noonu ak Cheikhul Khadim léegi nag ma ñëw ci événement yi xam ne am na ci biir sëñ bi biir dunduk sëñ bi tam doon ci weeru muharram maanaam weeru tam xarit bu ci njëkk mooy sëñ bi weeru tam xarit la gane àddina weeru maxaram la gane àddina am na nag werante waaye li ma lay wax man naa la wax fa ma ko sukkandikoo ñenn ñi dañoo wax ni sëñ bi mu ngi gane àddina fukki fan ak juróom ci weeru baraxlu loolu am na siiw na am na sax ñuy màggal boobu di ci màggal gën a sëñ bi waaye am na tamit ñuy màggal moom itam weeru tam xarit di ci màggal gën sëñ bi kon dama lay wax ne ñaari version am na ci waaye nag man dama lay tànnal benn version waxala la fañ sukkandiku ba wax ne maxaram ci la sëñ bi gane àddina ba ci njëkk sëñ Abdou Lahad dafa waxoon ci benn waxtaan boo xam ne ñëpp dégg nañ ko te mooy ba muy nettali itikaaf bi amoon ci jàkkay daaru doos intikaaf bi nga xam ne yoonu murit yoonu géej gi damay faral di wax ne signature contrat ba foofa la woon mooy ba sëñ bi gisee yonent bi sallallahu alayhi sama sallam jaxëran intikaaf kenn ko ne xam ne ci weeru koor lay am ci fukkeelu fan ni mujj ci weeru koor lay am ba yonent bi feeñu ko ànd ak xulafaawul arbaa muy Ababacar Omar Ousmane Aliyu ba ko feeñoo yont bi ne ko ñetti weer moo dox sa digganteeg nga am ñeent fukki at maqa xutbaani ya duñ ko fal ko amul ñeent fukki waaye yow lañ daan jëfandikoo danañ ko soppi ngir yow taxañal la ñetti weer yooyu léegi fal la xutbu samaan ba ni xise bi jeexee la ma yitteel rek la ma yitteel foofu mooy ñetti weer moo la desee nga am ñeent fukki bu fekkee ne suñ bi dafa ganewoon àddina ca baraxlu wa fukki fan ak juróom ca baraxlu wa kon day mel ne wax ji day tux benn mu am ñeent fukki at yu teg weer ak ay fan ndax kon boo defaatee fukki fan juróom ci fukki fan juróom ci baraxlu ci lay am ñeent fukki at kon day mel ne fukki fan juróom ca koor ga ci lay am ñeent fukki at ak benn weer bu ko defee fan yooyu topp ci ñaareel ba mooy nga ne kon kat daa mel ne euh, il faut fukki fan ak juróom baraxlu ñëwaat mu soog am ñeent fukki at lu ci ne ñetti weer yonent bi waxoon day dàqu te boo xoolee mm, mm, loolu koor la da nga naan kori digg tëbaski ñetti weer yooyu at mi jeex kon sëñ bi muharram la gane àddina bu dul loolu day am tanaaxut day am contradiction ak li ko yonent bi waxoon ne ko ñetti weer moo la manqué nga am ñeent fukki at ñaareel ba sëriñ bi amul sikki sàkk moom loolu ñëpp dëppoo nañ ci ne weeru muharram ci la wàccub liggéey ci la jógee njaareem ñëw Tuubaa man gis naa ci kataballaahu yi katabal lax goo xam ne sëñ Tuubaa da wax ne ki bind yi araf yi mooy ki wuy ji boroomam yoor yoorub altine ginnaaw ba mu julee euh, julik yoor yoor ba noppi nga xam ne altine fukki fan ak juróom-ñett la wàccub liggéey talaata fukki fan ak juróom-ñeent yaakaar na guddig àllarba ja lañ ko indi Tuubaa di xisroona muharam mooy bis bi nga xam ne moom la ñu màggal Daaru Xudoos kon sëñ bi muharam la gane àddina muharam la ñu bisi Tuubaa waaye Maam Mor Anta Sali muy waajuram moom itam ci weeru Muharram la wàccu liggéey loolu ko dem ci Irwaaw na dem da ko fa da ko fa gis mu ne weeru Tammu Xarit ci bi gàddaay bi amee junni at ak ñetti téeméer ci la Maam Mor Anta Sali wàccu liggéey ginnaaw ba nga xam ne euh, bisub altine ba sëñ Tuubaa jàng na kaamil ba jeex wàcce na kaamil ci bopp Maam Mor Anta ci guddik talaata ga mu soog a wàccu liggéey kon euh, ba tey Mamour Anta Sali kon muy waajuram ci weeru Muharram la génn àddina waaye xoolal sañ tubaa keroog ba muy jóge ci yéen di jëm si njaarim nga xam ne ca la waxoon waxam juré ja raamo maser yi ila njurbel la daa rasasin la waxaayanoo sirra maa fi sayr maa raamo nee tubaab yi ñu ngi may yóbbu bu ñu xamoon la nekk ci yóbbu gi ñu ma yóbbu ci njaarim kon duñ ma fa yóbbu ndax dem gi njaarim ak faatalo ci ñoom ba faw man nag ak yëkkati la ci man ak samay mbir yu des ba faw samay mbir yu feeñ ba faw loola ci maxaram la amoon la amee woon sëñ bi ajjuma ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru tam xarit bis boobu la mu ci def ci ba mu xëyee suba di gaaw di ñaar fukki fan ak ñett ci weeru tam la jóge foofu jëm njaareem waaye xoolal tubaa gi ñu doon waxtaanee léegi bi ko sëñ bi wër yàlla dafa dogal ci weeru tam ci weeru maxaram la sëñ bi gis leeru tubaa sëñ Modou Moustapha ci la gane àdduna ci fukkeelu fan ba euh, guddi àjjuma fukkeelu fan ba wala fukkeelu fan ba ak benn ci tam xarit ci xaama wasasin euh, wax nañ sax sañcu Tuubaa sax ci weeru tam la mm, dañoo wax ne mujjantalu xasasin la wala njëlbeenuk wasasin la bu dee ci njëlbeenuk wasasin kon ci weeru tam xarit lay doon ca rajab nag lañ ko soog a sañc kon sëñ Manoune Moussa ci la gane àddina Cheikh Abdou Khadir mii di ñeenteelu xalifam di imaamul ayima moom itam ci la gane àddina ci guddig ajjuma moom itam guddig ajjuma la xaama jal sa sin bi gàddaay bi amee junni at ak ñett téeméer ak fanweer ak ñett boo demee ci irwa na dem fekk ko fi waaye amaan na lu am solo mooy jumaa ji Sëriñ Tuubaa fonkoon joxe woon ci ndigal wax ne suñ borom ma ko ko may jumaa jooju keroog ba suñ borom dogalee ñu ubbi ko jumaa ji àgg jumaa ji àgg ubbi ga ci weeru tamxarit la woon ñu bari nag dañ koy fàtte dasa tubaab bi la jël da ngay dégg naan la le 7 juin rek 1963 waaye weeru muharram la woon weeru tamxarit la woon doonoon bisub ajjuma doonoon fukki fan ak ñeent bi gàddaay bi amee junni at ak ñetti téeméer ak euh, juróom-ñett fukk ak ñett te it tax ñu di ko indi mooy jumaa ji dafa am lu muy représenté ci yoonu murit ndax nenkaani sañ Tuubaa gi mu neewoon bi mu àggee bañ koy ubbi sëñ Safaale di ko wax naan ko comme yow sëñ Tuubaa na ko digle woon nanga ko bëgg woon defal na defal nañ leen ko noonu mooy bayitam yu neex yooyu waaye tamit sëñ Tuubaa dénkaane bi mujj dénkaane ci weeru maxaram la ko joxe message bi sëñ Tuubaa mujj joxe ci weeru maxaram la ko joxe loolu boo demee ci téere sëñ Silla ba da ko fekk wala boo demee ci xutbatu wam sa sin bi Cheikh Mouhamad Lam Diop Dagana def danga ko fekk sëñ euh, nee na sëñ bi dafa jiite tàkkusaan ba pare bisub samedi la woon fukki fan ak juróom-benn ci weeru Muharram wam sa sin 1346 bi mu paree mbooloo mi sëñ bi ne leen amartukum jamihan bi imsaaki alsinatikum wala sumi buyootikum maal ittihaadi fi duhaai wa sadaqati wa iqaamati salawaati alxamsi wa an laa yatlubani ahadu minkum li amrin ma ila insilaaxi rabihi al awal wa thaalika wa xaala ana sabu thaalika annahu araada lakum maa yasurukum wa yanfaxukum wala yadurukum fi daarini li balixa saaxida minkum alxayba suma axlaqal baaba waxtaja baax ni naas ilaa an raxiqa bi rabbi naas noonu la ko sëriñ si la indee nee na sëñ bi ne digal naan yéen ñëpp ngeen téye seen làmmiñ te téye seen tànk téye seen làmmiñ te toog seeni i kër ànd ak farlu ci ñaan ak saraxe ak taxawal julli juróom yi diine sëñ bi mujj dénkaane te ci weeru maharam la gaaw fukki fan ak juróom benn ci weeru maharam nga xam dimanche altine sëñ bi wàccu bu liggéey talaata ji eh, ci guddi eh, guddi àllaba gay ñu indi ko fi kon loolu yëpp dafay teg ne kon ndekete sëñ bi dundam am na rapport ak eh, muharram bari na li ko suñu borom defal loo xam ni ci weeru muharram la ko def gis nga liggéey bi muy liggéey xidma bi muy woote woo nga xam da koo liggéey nga xam ne lu bari da ngay gis sëñ bi di wax ne ci assasine da ngay gis si mbirum sëñ bi mu indi date boobu atum assasine 1301 ci gàddaay bi liggéey ba ba ko sëñ bi tàmbale ci weeru muharram la ci assasine boobu moo tax mu naan allahuma inni ibtadaxtu tawajjuhi ilayka xaama assasine fil muharrami bi daxawaati ilaa ama jay sa sin kon dafa mel ni liggéey bi sëñ bi di def def te léeg-léeg nga dégg min asasin li basasin nga xam ne datub asasin boobu dafa capital sëñ bi da koy tudd lu bari mel na ne ci la am woon intention am pastefu liggéey liggéey bi nëbbu ko ci biir xolom ba ci xaama jay sin mu soog koo feeñal loola ba ko bi tàmbalee di ko def ci xolom ci weeru maxaram la woon ci asasin moo tax mu ne ba daxatu bismillahi min muharramin xabdan xadiman maakisan bil karimi ba tey weeru muharram tamit sëñ bi da koo jëloon mu amoon njariñ loolu sëñ bi ndax sëñ bi dafa xaajoon dundam ñaari xaaj at mi da ko xaajoon ñaari xaaj xaaj bii solaatu sitta bi matti sitta taatihi batta maxaati saay juróom benn weer yi tàgg yonte bi juróom benn weer yi julli ci yonte bi juróom benn weer yi mu daan tàgg yonte bi nag moo tàmbalee ci muharram ba ci jumaada saani juróom benn weer yooyu moo tax mu ne allahuma salli wa sallim wa barik xaalaa man madaxtuhu min muharramin ila sahrati hakasa jumaada saaniya yàlla na nga julli na nga sëlman na nga barkeel ci ki nga xam ne dama koy tàgg tàmbalee ko ci weeru muharram ba ci weeru jumaada saaniya moo tax mu ne matxu rasulil karimil baasitil ajabi minal muharrami daynun li ilaa rajabin kon juróom-benn yoor yooyu daan tàgg yonent bi sallallahu alayhi kon muharram sëñ bi da ko jëloon muy weer woo xam ni ci lay tàmbali di tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biir weer wi nag sunu borom defal na ko ci lu bari bari loo xam ne ci muharram la ko sunu borom defal nee na nafa li xëyri asa muharramin man nafoo li xaadabin mukarami sëñ bi nee na mbooleem yool yi ma doon sàkku tiyaaba yëpp sun borom jox na ma ko ci weeru muharram la ma ko joxee weeru tam xarit xaadaleel ujoora fil muharrami fii haama taksasin bila muharrami bi gàddaa bi amee junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent loolu ci yéen la ci déwén sa la ñëw njaareem nee na mbooleem yool yi yëpp sun borom jox na ma ko te weeru muharram la ma ko joxe nee la ma doon jaayanteeg sama borom ba sun borom jënd ko ci man ba ma ko ba may jox njëgg ci weeru tam la axfa allati istaraahu rabbi mukarramun wan xaadile samanu wan xaadile samana fii muharami kon lam doon jaayanteek suñ borom suñ borom ba mu ko nangoo ba koy jox njëg la ci weeru tam xarit la ko jox wan xaadile samana fii muharami nee na naajeytuhu jàlla min muharamin bi zikril hakimi lil muharami tam xarit ba tam xarit dil siwaat sëñ Tuubaa nee na damay dee aleeg sama borom ci alxuraan yi nga xam ne mooy azikrul hakim ah taariya naafihu nafal baax yi waxaadiri ma wax yi su baax suñ borom jox na ma njariñam li moom njariñam li nga xam ne mooy njariñal aji des ji te jox na ma lam joxoon ñu njëkk ña nee na fay suñu borom suñu borom jox na ma ko ci weeru xaram bi sa u rabbil alil mukarami lii taaba furxatan la daa muharrami Sëñ Tuubaa nee na mboolem li ma sàkku doon sàkku doon ko mu wét doon ko bëgg suñu borom may na ma ko te mi ko teg sama loxo jox ma ko ci weeru muharram lii waxab tara bi fil mahrami jumlata mastaxaytu saa takkarumi suñ borom may nga ma jox nga ma moolem la ma mibatoon bëggoon ko ca ci weeru mahram nga ma ko joxe te it nee na li sàmbale ci yow ma xaasuura ci laaw waxumate sama xarima jëmale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annabi jëmale ko ci nga xam ne mooy euh, ki yàlla yónni waaw mooy ki yàlla yónni kon loolu daanaka mooy xalima yi nga xam ne xalima yi tagg la nee na waa jaxtu bil xatti li yow ma xarafa min yow mi xasuura baabal maxarifa kon gis nga euh, muharam daal euh, am na rapport ak sëñ bi fi ñu daanee rek mooy ñaari bayit yi sëñ bi wax ci ne aw sala rabbi yow ma xasuura li samani wa sunatul xaraa nee na daal la ma doon jaayanteek suñu borom ba suñu borom jënd ko njëgg daal suñu borom jox na ma ko ba ci nag ci bisu tom xarit sax la ko teg sama loxo aw sunu rabbi yow ma xaasuraa li sama ni wax sunatul xaraa sunu si yent nga xam ne mooy sunu su leer si ci sunu borom ci yow ma xaasuraa gi la ko sunu borom teg ci sama loxo daal ne malaka ni sunnatuhul xaraa man li xaada yow ma xaasuraa kon ci gàttal daal sëñ ci baa ngi noonu tam xarit a ngi noonu li ci sëñ bi bind bari na li ko sunu borom defal. bari na lam wax ci ay ngëneel wax na ko ci barab yu bare bari li tuuti rek la ci woon ab tënk la ci woon kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax axiru daxwaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu